la la la ilaha

tayit jar waaxu ak a daw bamba jar na ñukku ak a raam jar na waaxu ak bamba jar na ñukku akara bamba jar na ñukk akara tey waaxu ak daw bamba jar tayit jar na waaxu ak daw nee leen borom Tuubaa

Bamba war na bépp jaam ne leen jaajëf borom dafay yëngal xaaras ne leen jaajëf borom fay yëngal xaaras ne leen jaajëf borom Tuuba nee nanu borom Tuuba ku sopp Cheikh Ahmad Bamba nee nanu jaajëfati borom Tuuba ahmadu mi mooy ki gën sant borom Tuuba mooy mi mooy ki gën a sant borom Tuuba ahmadu dafay sant borom ahmadu mi mooy ki gën a sant borom tuuba dafay sant borom ahmadu mi mooy ki gën a sant borom i santati borom Tuuba ak ci loo moom de dafay santati borom Tuuba foo ko fekk maa ngay santati borom Tuuba Ahmadu ni foo ko fekk maa ngay santati borom Tuuba wax borom Tuuba dëgg la wallahi may ki gën man borom Tuuba bëgg la a sant man borom may ki yaay sant man borom Tuuba ki gën a sant man naay ki gën a sant man borom maay ki gën a sant man dëgg la may ki gën a sant man borom Tuuba nilo turga Cheikh Ahmadu Kara Ahmadu Kara ne Cheikh ahmadu kara ku sopp Baay Kara kenn du fi Cheikh du fi Cheikh ahmadu kara ahmadu kara ku dul Cheikh ku dul Cheikh ahmadu kara ahmadu kara ni lo turk شيء لا ترك شيء أحمد كرا أحمد كرا نشيء أحمد كرا كان دو شيخ Cheikh Ahmadou Bamba maa leen ni kenn du Cheikh oh Ahmadou Bamba waaw Adama ni kenn du Cheikh waaw waaw Ahmadou Malenike na duše, Sheikh Ahmadou Bamba waaw buur bi Yàlla ne moog yonenam be ñoom ñoo ni kenn du Sheikh Ahmadu Bamba borom asamaan ne ki suuf si moo wax ni moo ko yónnee nam nee nañ ñoom ñoo Ahmadu Bamba kenn du Ahmadu buur bi yàlla ne yónneenam bi ne kenn du Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba شيء والله أحمد بنبا كنادو في شيخ شيخ أحمد بنبا bu ko defee lun lay fayee baykara lun lay fayee général baykara loolu lay faye baykara li nga def daal manu ko bay daal tële na ko loolu ku li nga def ci dën yee daal manu ko bay daal tële na ko loolu Cheikh Modou Kara def ci dën yee fayda tale na ko loon lay ku tedd ki dafa raw rawale ko moo ko fayee ñun ñi oh, déedéet damay bañ bu leen fàtte suba la màggal gi <laughs> duma la bàyyi ngay ci di wala waaw kii yëkkati leen ko waaw kii ko dem leen kii ko Moustapha kii ko waaw dem kii mani daaw dafa am luma len di deg dina nuru sax aw bakkar feggu ma di defal waye mérite la ci yeen waaw xamna naa jëriñ ju mag ji nekk fii waaye jëriñ Moustapha ngi nii sànq sax xam nga man bu fekente ne bay dal moy dom motax même seigne Cheikh Ngom bu sama xel demee ci momit euh du du ki maanaam bu ngeen gisee ma xaalu du ma xaalu ci ku nekk barsaq déedéet du ma nekk ci ku nekk euh, barsaq te xam ngeen ni sama doomi nijaay yi fi mu nii même fàllu bu fi nekkul it mel na ne mi ngi fi fi ndaayee nekkul it mel na ne mi ngi fi ndax moom Pape da leen di remplacer waaye li ma bëgg a wax rek mooy fii dañu fiy waajal gàmm gi incha allah bu ci yàlla àndee mawlud bi gàmm gi ren. dañu koy defe daaru bu ci yàlla àndee léegi nag léegi nag yéen bakkar feggu yu ma leen di defal bu gàmm gi jeexee bu may jaar cees dama fay am ñetti fan incha allah waaw nga xam ni loolu loolu li ma ci li ma ci jublu sama diggante yéen du la ma fa juddoo taxul de li nu dafa am lu nu bokkale li nu bokkale li nu ku sedd ku tedd ki maanaam li mënu boole te kenn mënu koo yóbbu bàyyi sa morom looloo tax daf noo boole leer goo xamante ni bii day wëndeelu ci sunu biir waaw te it Cees nekk ci yoonu Ndakaaru waaw loolu jotewul dara ak juddoo gi ma fa juddoo waaw da ngeen maa won loo xamante ni bii ku tedd ki boole ñu loo xamante ni bii ngeen di saytu seen wàll waaw ngeen di saytu seen wàll ci saytu wën wu rafet nag waaw ci jëwriñu Seydi Moustapha ci jëwriñu Cheikh Modou Ngom waaw gis ngeen ni mu def ba may ba may jaar Thiès waaw man maay koo xamante ne bi moom ma sama bopp ndax dama joxoon dama joxoon rendez-vous ñëpp daaru ma naan ci tuuba ci màggal gi waaye lay daaru naan mooy daaru mu fii ci Touba la bokk mooy xolub Touba loolu moo tax moo tax muy demee nii mu demee waaw maanaam di dem ak dikk la rek dem ak dikk la maanaam dem ak dikk la waaw ku bëgg a ji dem ziyaare ji ñi demul di ziyaar à distance ndax ziyaar moom dem da ngay toll fii di ziyaar màkka yàlla di nangu boo ziyaaree fii jumaay Tuubaa itam boroom mën naa nangu waaw te boroom borom daa fonk ceerno boroom dëkk bii ba nga xamante ni bii lu def ci ceerno rek da cey bég bu la naroon a fay benn ñaar la lay fay waaw ma ne ko tedd ki noonu la demee ceerno loo def fii ci ceerno ci aw yiw lam la doon fay daf koy duubulee waaw tubu ilallahi waxtaadu mula tafatan tahus xulu bu ko mu xaw mi mukashafatan fa kullu naa falyetu bi yarju musa dafatan astaghfirullaha addaafan mudaafatan waaw xanaa di fàttali rek ku ci dara jot bala ngaa dem ci médecin bi ku ci maîtriser aw bayit wala benn alif wala benn waaw wala benn miim wala benn keef ci bayit woo xam ni waxi ku tedd ki la nga wax ko ni ko kat su fekkee dama war a piqûre dama bëgg nga piqûre ma su fekkee comprimé la war a naan dama bëgg nga remplacer comprimé bi def ko matin di soir boo ko defee benn bis ñaari bis ñett bis nga xool ba xam la la dal dina faju wala du faju ndax itam murid day am ful la bu la Sëriñ Tuubaa waxee dara da ngay gëstu lim la wax waaye ku dara ne cocc rek nga ne damay dem defi analise seetal lii analyser lii ba noppi parce que daf laa jege moom moo ko wax mun na alayya bi xulumil asfiya wa bi kitaabati kulla dashfiya nee na li mu bind feebar yëpp ci fajoo waaw kon nag ku am fula da koy seet bala ngaa dem di seeti médecin seet ko moom ci boppam ba noppi li mu la wax ba xam nu muy dem man de nettali naa leen fii laa wax ne ba jar na dàng dàngi jar na yëddi nàng nàngi dem ba Napoléon ca Paris ca Suisse royale ba ma soog faa xam ni ne ndekete ba jar na dàng dàngi ndekete mooy laa ilaha illallah jar na yëddi nàng yi ndeke mooy Muhammadu Rasulullah waxee ko fii xamee ko fe ndekete Bamba jar na dàng dàngi mooy il n'y de Dieu que Dieu jar na it di nang nangi ndeke mooy c'est le prophète Mohammed qui son envoyé qui est le sceau des prophètes ko fii xamee ko fee dem fa di sol col gu mel ni colug Napoléon di geetaru hmm? waaw damay communiquer su ma colee col gu mel noonu damay won tubaab yi ni leen ña àndoon nag moom ca démb daan ko bundu seen chef supérieur yi nii lañ daan solo kii nag dañoo war a solo nii ba noppi di comporté woo nii ci kanamam tubaab yi laay waxal moo tax bu kenn bu kenn jaaxle ci nu may comporté woo waaw damay incarné nu ne lii waaye lépp nag dans la communication damay communiquer waaw ah. tax yéen nak mom xam ngeen ni ëllëg mom fuma ma dugg ngeen dugg fa ku tedd ki kep ku tedd ki kep lañu fi dégg manan dem na aljana ay yoon yoon yoon dem di visiter ji château yi ak palais yi ñu ko fay defal muy dem di visiter ji ñëw moom rek la ñu fi gis mu ni dina dugg àjjana bu ne dina dugg àjjana te fekk mu wax nu ni jóge na fi ay yoon dem di visiter ji yu ko fa malaayika yi liggéeyal ci ay pale ak i château man ma wax leen léegi ni ëllëg fu ma dugg ngeen dugg fa hmm? ah, ah, ah jannatul firdaw si de moom mooy juróom déedéet maanaam daaru salaam ba daaru xaraar fu ci nekk fu ci nekk ku tedd ki dafa am ay palais ak i château te fu nekk wutal na ma fa appartement déet waaye li yéeme du loolu mooy apartement yi appartement yi benn bu ci nekk waa Sénégal mënuñu koo fees loolu loolu moo ci yéeme appartement yo xam da ngay réer ci biir ba doon sen pap Ndiaye mii da ngay réer appart appart da ngay réer ndax ndax aljana ñaari entrée la entrée bu nek double batala ñaari la ñaari cité la yo xamni ñaari entrée double batala te ko ubbé malaayika yi ko ubbé ridwan bu ko ubbee ñaari bataay comme ñaari bataay yi distance bi toll na ne asamaan ak suuf ne bataay yi ax ma taxaw ñu ubbi nii bu ñu ubbee benn bunt ba double bataay la diggante bi toll na ne asamaan ak suuf <laughs> waaw moo tax man leen appartement boo fa gis waa Sénégal xaj nañ ca biir te dañuy réer dañuy réer ca biir bu ko defee nag kon jaamu yàlla yépp sant gu dëggu moo ci gën a kawe cant gu dëggu te suñu borom moo ni la in shakartum la azidannakum ku tedd ki nag ñun li tax ñu koy sant dafa bind ni yàlla sant na ko malayka yi sant nañu ko yonent yi sant nañ ko waaw moom daf ko bind nun nu jàng ko ah. kon defe naa ne ñooñee bu ñu ko dee sant ñun ñoo ko war a gën a sant waaw ñun ñi mu def ay muridiin ñu fassiyene nek ay saadixiin fassiyene nek ay nabil Wa, muridan sadiqan wa nabilan bobu murid lay waxal l'aspirant véridique et intelligent koko lay waxal aspirant bi véridique ba nopi intelligent nena koko lay wan yoon wi uri li wa ci maliki sabila kulla muridin saadiqin nabila kon jëwriñ Moustapha bu ko defee gàmm gi néewuñu na ñëpp gàmm si waxuñu loolu dañ leen koy yëgal rek ku ko mën ay gàmmu si waaye man maa leen dig ni bu ñu gàmmoo daaru ba noppi dama leen a dig ñetti fan Cees nu demee ba egg ca te mënta nekk rek ngeen xam ni yéen a jee koy eggale waaye yéen ji la am c'est l'intention qui compte <laughs> waaw maanaam booy yéene yéeneel lu baax rek booy wax waxal lu baax booy def it a def mu baax imaanan wa islaaman wa ihsaanan jërëjëf boo ko defee paap ngeen tàggatoo dem nopp bamba jar na ñukk ak ka tayit jar na waaxu ak ka bamba jar na ñukk